li si yéenekaay yi ak Ami Dem Senghor. internet du 5 TV àlema seen nopp ma dégtale li si yéenekaay yi quotidien national bi la koy dooree Le Soleil seq waxtaan ak professeur Didier Raoult moom Didier Raoult mu xam le ni lu ñeel covid 19 bi Sénégal da caa war a siggi ndax tolluwaayu jàngoro ji ñëpp la tiital waaye Sénégal jamono ji amul benn signe boo xam ne rek war naa tax muy tiit mu xam le ni bu nekkoon rek conseiller jorin bi ñu dénk wàllu ko wér-gi-yaram fii ci Sénégal du fi def lu ëpp li nga xam ni moom la professeur Souleymane Mboub def ak docteur Soxna ba tey rek xam le si waxtaan boobu ni santé publique boo jël juróom-ñaar fukk ya ci politique rek la jëm téeméer boo jël ba tey rek fanweer ya ñoom ñoo nekk wàllu ko science di xam-xam mu teg bi nga xam ne ñoo ci ni dara warul tax rek xaaj xaajaatu adduna bi yépp dund si njaaxare ba tey rek si entretien boobu di jarawul dellu si na rek ci li nga xam ni moom la jot a dund fii ci Sénégal te mu ne rek dootu ko fàtte te booba jamono nag le quotidien moo ngi ñuy xibaar ni mbas mi moo ngi rek gën a taral yoonam ndax bésu aadama yoo xam ni faatu nañu si mbas mi yéenekaay bi teg ca ni fukki nit ñoo si faatu ci diiru ko ñaari fan rek ba tax rek vox populi ne lim gu yaatoo yaatu moo am rek si ñi ñoom la mbas mi di faat si ko benn fan rek juróom benn nit ñoo si faatu si diiru ko ñetti fan nag yi ñu weesu fukki nit ak ñeent faatu nañu si l'observateur di ñu xamal ni ca lycée bu Vélingara benn élève bu nekk rek ca classe du seconde la ñu rek gis doomu jàngoro si moom le quotidien di ko dëggal ndax fësal na ni benn lycéen la ñu testé positif ca Vélingara ba tax wal Walf Quotidien jàngoro ji dugg na ci ci système éducatif bi ndax lycéen bi nga xam ni daa am jàngoro coronavirus bi tënk na njàng maak njàngale ma foofee ca Vélingara l'observateur ne sénégalais yi dañoo tàmm léegi dund ak jàngoro ji te loolee nag ra wóoru ca na ba jamono ji dëppootuñu ak diglewu waa kër docteur su soit di ko ca feeru ndax fësal na réew mi ñaari yoon a fi am ndax kilifa yi dañoo wane ni rek seen bëgg-bëgg leen képp la te mooy daan mbas mi ba noppi nag ñuy bàyyi xew yekk mbumbaay yi di am ci réew mi ndax yéenekaay bi xamle na ni ci week-end bii ñu weesu ca booru campenal bu fees dell ki nit moo fa amoon euh, ci samedi bi nag beneen xew boo xam ne andi woon rassemblement bu a mag moo amoon ca ak lu mu ci mënti doon rek Abdoulaye Diouf Sarr ci l'observateur bi moo gën a tar rek bi moom moo fi njëkkoon a am ba tax rek mu xam le si vox populi wax waxu rek li xam ni moo di état d'urgence waaye na ni euh, ci yoo xam ni amul yemukaay la ñu jëm ak njiitu réew mi te loolee nag beneen état d'urgence sax mën na cee bokk ñu jàll ci lii quotidien yérekaay bi ne njaayum xaal di pastèque nag nekk na loo xam ni business bu dox la boo xam ni nag Covid 19 bi yàqalu ko dara ba tey rek Vox Populi xamle na ni lu ñeel njaayuma gerte mi itam bu ñu sukkandikoo ci Moussa ko mbay meeg équipement rural am loo xam moo koy njort ba ñu sa amoon mu teg ca ni campagne am la ñu am rek si jamono joo xam ni masu fee am ndax Covid 19 bi ndax 3,8 millions ci tonne céréales am nañu ko ak 1,8 million ci tonne gerte waaye lu ñeel nag njëgal gerte bi bu sukkandikoo ci lii quotidien baykat yi dañuy ñaawlu rek wàññeeku bi nga xam ne moom moo ci am ndax njëg la daa jóge rek ci juróom benn fukki dërëm daal di dem ba si juróom fukki dërëm ba tey journal bi xam ne ñu jaayee njëg loolu ba tax ci benn kuréel ba noppi nag di sàkku si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq nga ñu téye seen gerte yi observateur dellu si waat ci lakk-lakk bu metti bi nga xam ne moo am ca ngajaga yéenekaay bi andi nañu kàddu yi benn borom xam-xam jëm ci rek sécurité incendie li mu xamle rek mooy tàkk-tàkk bi niruwul sax ak luy waaj a fay te mën naa jur nag ay jafe-jafe si mel ni pollution atmosphérique ak ak gaz toxique bi euh, mu teg ca ni gaz ya fa mën naa dugg rek ci biir napp bi ba tax journal bi ne Ngajaga bu moyuwul rek dina dund explosion ak faatuk ay bakkan ñu jeexal ak source a mi ñëw ci mbir mu doy waar ndax xam le na ni benn soxna bu am borom kër la ñu sàcc ay vidéo yoo xam ni mu neen la ca def ba noppi nag di ko ca chantage sexuellement maanaam rek da koy laaj boppam loolee nag nee nañu jëkkëru xaritam moom moo ko def dañuy dal